waaw waaw waaw waaw avertissement pour Mass Ngom avertissement pour Mass Ngom Mass Ngom ak Ibou Kane deuxième demi-finale bi diggante Modou Fa Ordinateur ak Jacob Baldé waaw waaw ndeysaan kooku Mbaye ak Loum la yaayu Mohamed waaw ak Aminata ndeysaan waaw waaw Modou Fa Ordinateur ak Jacob Baldé Jacob balde yang ngi dalu ginnaaw tu risque d'avoir un avertissement waaw waaw hé hé ibu kandang daan ibu kandang Ibou Kane daan na Mass Ngom Ibou Kane daan na Mass Ibou Kane na Ngom